du woon Mor Kankang ak Alioune ñu ngi noonu arbitre bi ngi xool Alioune Seye ba xam yaram bi niinul boo niinee mu ne la demal fomp mbaa sotti ci suuf mbaa nga fexe ba ñakas ndax ku niin du bëre Ndaysaan ma nga noonu Mor Kankang nekk écurie Bawol Alioune Seye nekk écurie Waalo kii jugee Yëmbal kii jugee Colobane gañe na moom Mor Kankang ci pile bi a dañuy xaar arbitre bi wala entraîneur Alioune Seye mu am lu mu yóbbu ndeysaan ñaari xale yaa ngi noonu Mor Kang Kang Alioune Seye arbitre bee wax ak ñoom ñaar li règlement bi nangu li mu bañ luy bëree ak lu dul bëree arbitre bi laaj na ay siisam laaj na Alioune Seye Alioune Seye nee na pare na laaj na Mor Kang Mor nee na pare na mbokk yi arbitre bi sifflé na dimanche 24 juillet 2022 arène nationale Fallou moo ñu fi woo il est 21 heures 57 minutes Mor Kang Kang jàkkaarloog yéen ngemboo ngembulu bula Alioune Seye Junior wan leen ginnaaw ngemboo weex Mor nee na public bi jug leen képp kuy Kang Kang jugal ndaysaan ñu ngi noonu ñu ngi lewaatoo Mor Kànkang ngi dox ci kaw Alioune Seye Mor dagg na lewtoo bi taxaw na ndaysaan taxaw na bu doon may Alioune Seye du ma bàyyi Mor Kànkang mu diriger lamb ji ndaysaan mu ngi noonu Mor Kànkang Alioune ndaysaan Mor Kang Kang Alioune Seye ñu ngi leewaatoo ñoom ñaar Mor Kang Kang Alioune Seye Alioune Seye jiital tànk ndijoor Mor Kang Kang jiital tànk càmmoñ fausse garde la garde normale ñoom ñaar a noonu Mor Kang Kang Alioune Seye lu nar a xew Mor Kang Kang Alioune Seye na lewtoo bi na ma ngay day ñëw ndaysaan Mor Kang Kang Alioune Seye ikiri waalo ikiri bawol na moom Mor ndaysaan Mor Kang Kang cokkaas na Alioune Seye ngi na tekk di ko déglu Alioune Seye Mor Kang Kang Alioune Seye ne Mor Kang Kang Mor doon na Mor doon na léegi arrêt de droit ndaysaan Mor dooraat na daw na jëli ko Mor jëli na Alioune jàpp nañ jàppante nañ ñoom ñaar Alioune Seye Mor lu nar xew Alioune ngi dóor Mor Kang Kang ronu na ko Alioune ngi bañ Mor Kang Kang dóor laay laay la laa Mor Kang Kang daw na bañ na da ko bëgg a bët wala déet xar na ko mu ngi koy forcer Mor Kang a bëre Mor Kang Kang Mor Kang Kang Mor Kang daan na ko Mor Kang Kang daan na Alioune Seye Mor Kang Kang daan na Alioune Seye yàbbil yàbbil yàbbil ko protestant sagal. yàlla la yàlla fay. yàlla la yàlla fay. yàlla la yàlla fii sagal nga ma. bul jooy sigil nga ma booy. Mor Ah. Mor ñëwal ci façon bëre bi nga bëre. waa sant yàlla rek. bilaay bëre bi sax maanaam tegu ma ko si yoon. wala dama ko tegu si yoon rek. wóor na yàlla la gileel maanaam lim ma def moom ma naqari. biteel bi ma xëpp te waruma xëpp biteel. ba bala te bu fexe ba sama grand génn géew gi bagage sax bi ma koy def bi ma koy defee man xaw ma xaw ma nan la bagage yi waaye na yàlla sunu borom maa ngi talal yàlla sunu borom bu baax. nan nga bëreeg moom nan. kii dem yàgg naa la ko wax ne naa la duñu bëri une minute bu ñu jàppantee ma daan ko barki Serigne Fall laa la giñal fi ma teg sama bët du moom wallahi du moom barki yàlla barki rasulullah nee na moment bi nga mu mag wallahi xasim yàlla gi moom la soxla Aliou Seye même Aliou Seye 2 billahi wallahi moom la soxla barke Serigne Fall bu ñu ko joxee mu duma ko daan moom dafa wedd moom bi ngay moment bi ngay def action bi teg nga as ba pare dama teg as loolu la yéen ngeen seetaan mais kan moo teg as les grands may nañ ko ko waaw maa ngi sant autorité yëpp di sant képp bawol bawol maa ngi lay sant gis nañ waay waay dana gis nga bëri xol dafa am lu fi jotoon xew sànq am sa benn mbokk bu ñëw doon daan moo tax ma ne bëriwu ma waaw xool laa bëriwu ma bëriwu ma waaye ko mu sànn waay waaw